2021 bi dina nekk at moo xam ne dina neex ci askanu Sénégal may sa baabu na jàpp ma ko te li ma jàpp mooy atum 2021 bi muy gën a doy war muy gën a garaaw muy gën a métti ci askanu Sénégal loolee na ko Sénégal yi def ci seen bopp may sa baabu ñu laaj ko na ko économie bii nga xam ne dafa nërmeelu ci réewum Sénégal ndax jàpp nga ne Sénégal dina ci gaaw a génn may sa baabu na jàpp ma ko jàpp naa ne Sénégal dafay gën a surax économie réew mi dafay gën a nërmeelu la ko waral bokk na ci xaalisu réew mi nañu koy amee nañu koy jëfandikoo ñu koy dugal moo baaxul war a suppar ñi beneen bi moom may sababu nee na Sénégal bu ñu waxante dëgg maanaam bor yi moo bëri Sénégal li muy leb bëri na loola jamono ji sax Sénégal dafa am ay jafe-jafe ci lu jëm ci wàllum xaalis may sababu ci yéen a kaay gii di réew mi quotidien ne askanu Sénégal na leen leer ne maanaam njëg yi dina yokku te du yàgg loola man nag ma leen ko wax yéen a gi ba tey moom may sababu daal di wax ne sénégalais yu bare bare bari seen loxo jutul seen ginnaaw maanaam dañoo ndóol am na ñoo xam ne dañoo ndóol ba maara day taal yi ndax téeméer boo jël juróom fukk ya ak juróom Sénégal dañoo ndóol te nag réewum Sénégal fi ñu toll nii soo moytuwule maanaam ci ay girawale kii njombe yu doy waar ci la Sénégal di dugg ndax dund gi dafa cher facture courant yi cher na ba jéggi dayoo facture ndox yi cher na ba jéggi dayoo location bi cher na scolarité bi sax dafa cher maanaam lu jëm ci wàllum njàngum xale yi cher na loola te ay weer a ngi nii Sénégal liggéeyul moom may sababu daal di wax ne leneen loo xamante ni bokk na ci li yàq réew mi maanaam ger gi ger gi moom bëri na lool bëri na lool ci Sénégal te nag Sénégal leneen loo xamante ni bëri na fi bi Maysa Babou nee na mooy ay projet ay projet yoo xamante ni amuñu benn njëriñ projet nag yi nga xamante ni amuñu njëriñ nag ñun naan leen nañu ko arrêté yi nga xam ne jot nañu ko commencé ñu yeggale ko moom Maysa Babou nee na Sénégal bu ñu waxantee dëgg du réew moo xam ne respecté nañ li nga xam ne mooy bon gouvernance maanaam yorin wu baax moom Sénégal dañ ko fii dégg rek ma jàll ci yéen a kaay gi de la turbine nee na atum 2020 bii nga xam ne moom la ñuy génn at la moo xam ne bëri na ay jafe-jafe at la moo xam ne ñu bare bari am nañu si la ñu bari tamit sonn nañu ci mbas mi mbëkk ñàkk mi mbënn mi yéenekaay gi nee na atum 2021 bi sax amuñu ci njort lu rafet ne dina nekk at moo xam ne maanaam atum naataange lay doon waa turbine ñoom amuñu ci maanaam daal xel mu rafet yéenekaay gi du l'Observateur nee na atum 2020 bi bëri nay jafe-jafe yoo xamante ni jaar na ci Sénégal ak ci secteur yu baree baree bare société bi ci boppam dañoo am ay jafe-jafe wàllum culture wàllum sport wàllum justice wàllum éducation néewaa na Sénégal fooy laal foo xam ne amul ay jafe ci réew mi yéenekaay gi di L'As nee na atum 2020 bi kay mën nañu koo tëkkale maanaam at moo xamante ni guddi gu yàgg yàgg yàgg te bët setul maanaam guddi gu yàgg te ak ànd ak ñàq rek kii sa yéen a kaay gi de Le Quotidien nee na atum 2020 bi bëri na ay deal politique yoo xamante ni am na ci enquête yéen a kaay na atum 2020 bi kay bu ñu dund dundati at moo xam ne dina mel ni moom ndax bëri na ñoo xamante ni maanaam seen yaakaar tas na si ak immigration clandestine bii nga xam ne bëri na ay doom réewum Sénégal yoo xam ne faatu nañ ci ndox mi ñu bare bari dund ay jafe-jafe Sénégal jamono bëri na ñoo xam ne maanaam tàqali ko rek ak atum 2020 la ñu bëgg ndax tamit bëri na ñoo xamante ni faatu nañu ci ci woppi coronavirus di ay kilifa ci réew mi yéen kaay gi di réew mi quotidien nee na université du futur africain président Macky Sall nee na Abdoulaye Wade la ñu koy tuddee niki démb la ko xamle ci conseil des ministres yéen kaay gi di li quotidien nee na Macky Sall ma ngi tàllal loxo Abdoulaye Wade di ko njaay cekkee di ko neexal jamono ji yéen kaay gi di source a nee na Abdoulaye Daouda Diallo mi nga xam ne moom lañ dénk xaalisu réew mi demoon na ci assemblée nationale doon leeral mille milliards yi nga xamante ni génn woon nañ ko ci lu jëm ci woppi coronavirus waaye nag moom Abdoulaye Daouda Diallo wax na bën a gër géex waaye yeyul kenn yeyul benn député yéen kaay gii de la Soleil nee na nag artistes yi jamono ji am nañu lu leen di protéger ndax loi bi nga xam ne mooy tax ñu xam kan mooy artiste ak kan moo ko doonul loi boobee voté nañu ko yéen kaay gii de la Témoin xëy wax ci lu jëm ci wàllum njàng mu digg doomu meek wàllum góor jigéen gi nga xam ne waaye UNESCO ñoom ñoo doon sàkku ñu daal ko ci dugal yéen kaay gi nee na Mamadou Talla mi nga xam ne moom lañ ko dénk ay waxam dara leeru ci yéen gi ñu xëy fekk fa Ousmane Sonko nee na sax moom dafa ruus dafa am gàcc ci am réewam ak fi réew mi toll kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi ñu fiy wax mbirum góor jigéen su sunu école yi waaye nag lii lépp Macky Sall ak ñi nga xam ne moom la àndal yàgg nañu ko naal ci réew mi yéen a gi di Stades wax na ci gaynde yu Sénégal ak li nga xam ne moo leen di xaar ci atum 2021 yéen a kaay gi di sunu làmb ñu xëy fekk fa Asu Diop mi nga xam ne moo yor lépp loo xam ne jëm na ci wàllum communication mbër mii de Lac de daan nay wax ne jamono ji seen yitte mooy fexe ba nekk roi des waaye nag bala ñu koy nekk il faut ñu daan Eumeu Sène mi nga xam ne moom la ñu war a bëreel